بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم سني برام mu ne yaa ayyuhal mudassir ay yow mi nga xam ne yaa muuru mooy ki nga xam ne dafa muuroo li nga xam ne mooy pa- paltoom manto bi muy sol di sor mooy la ñuy teg ca kaw yére yu ndaw ya mook muzammil benn la rek muzammil ay mbàjj lay doon su qum fa anzir jógal nga waaraate ji wa rabbaka fa kabbir ca sa borom nga màggal ko wa siyaabaka fa tahir sa yére nga laabal ko wa rujza fahjur xërëm ya dëdd ko wala tamnun tastaktir bul baaxe kenn xéewalal kenn ngiree sakku ak bari la ca moom wali rabbika fasbir ngiree sa borom kese muñal fa ida nuqira fi naaquur heure bu ñu ësee ca ëfukaay ba muy béjjén ba nga xam ne mooy assuur fa zalika yowma idin yowmun asir loolu day dana nekk bis keroog bis boo xam ne bis bu jafe lay doon ala alkafirina gayru yasir dana nekk ci yéeféer yi kenn du leen ko yombalal zarni wa man xalaqtu waxida bàyyi ma maag ki nga xam ne dama koo bind muy kenn wa jaaltu lahu maalam mamduuda ma daa di koy defal alal joo xam ne ju tàllalu la wa banina shuhuda ak doom joo xam doom yoo xam ne yu teewe lañu wa mahattu lahu tamhida ma daa di koy yombalal yaatalal ko ak yaatal yombalal ko ko summa yatma'u an azid waaye li lépp mi ngi mébét ma dolli ñeel ko kalla déedéet innahu kaana li ayatina anida moom day nekkoon na ci sun aaya yi di koo xam ni ku ca wane woon ak dëgër bopp la sa urhiqahu sauda danaa ko forcé mu jëm ci sauda am nañu ku mel ni ibnu abbas daana ko firee ne montagne la bu nekk ci biir sawara yal na yàlla musul ñu ci bokk li mooy suratul mudassir di saar boo xam ne borom xam-xam yi dañ ne ca la yàlla nommé sunu yonent mu nekk rasul dafa am lu ñuy tudde nabi nabi mooy ku yàlla xamal sharia bi passé mu nekk noonu ama rasul mooy ku yàlla jox yonente gu bees mu war a jóg di waare loolu tax bu dee ni anbiya yi ay junni junni lañu amma bu dee al mursalin borom xam-xam yu bari dañ naan ñetti téeméer ak nangam lañu suñu borom commencé na ko ay yow yeneen ci bi sangu jógal mi ngi noonu ay wane ne waxtu noppalu yow pare na ci yow te mbokk yeneen ci yàlla bi mi ngi noonu bëccëg ak guddi yépp jógal jëm ci sa borom jógal nga waaraati ji jógal waaraate ji ndax loolu mooy sa rôle ci kaw suuf tey waaraate boobu nag dana jafe lool dana metti lool dana am ñoo cee tiit waaye bul ragal bul tiit fa rabbaka wa rabb rabbaka fa kabbir képp koy tiit neel allahu akbar gaa yi yàlla moo gën a màgg lépp ku lay menacé yàllaa ko gën a màgg borom nguur yàllaa ko gën a màgg borom jabar yàllaa ko gën a màgg borom pexe yàllaa ko gën a màgg moo tax wa rabbaka fa kabbir waxal dëggug yàlla gi ca ragal yàlla bu ci ragal kenn ku dul yàlla te it màggal yàlla mbokk danay yegg ci mboolem lu yàlla digle nga xam ni la la koy bëgg la la koy tere def yàlla ko gën a màgg mboolem lu yàlla tere la lay bëgg xiirtal pour nga def ko yàlla ko gën a màgg sa yére laabal ko naam am na ñaari maana mooy sa yére fexeel bu bu ci sobe taq na am ndax julli gi ñuy julli fokk yére yu laab am waaye lu bari ci borom xam-xam yi dañ ñey fexeel ba say jukko na laab say jëf na laab ay libaasu taqwa zalika xayr yére ragal yàlla moo gën ndax kat yow mi bëgg a woo ci jëme ci yàlla su dee mboolem li pinc mi bañ yaa xam nañ ko ci yow sa boote ndax dina réussir réussir waa joo xam ne mi ngi woote te gis nañ ne kii kat moom day carte day naan day njaaloo ba bëgg a ba pare bëgg a waar doomu aadama loolu mën na nekk loolu loolu mën ta nekk looloo tax mu ne ko laabalal sa yére gis ngeen firaw na say-say bu bon ba sax keroog ba mu bëggee weddi Moussa lan la ko wax yow ñoo la yar fii ba pare faalta faalata kaliti faalta gis ngeen na ko yaa fi def lu rëy rëy rëy yaa fi rey nit daw ba pare naan ñoo dañuy jàngal moral yooyu kon di mbir yoo xam ne képp koy jullit war ngaa moytu luy tilimal sab der waaye rawatina nag képp koo xam ne da nga nekk di woote ci yoonu yàlla loolu it ñu ci gën a ñaaxit ndaw ñi nga xam ne dañuy góorgóorlu di dund sunna galawaay ni ñu gën a moytu lenn loo xam ne gannaaw dund diine ji dafa mën a yàq na doon ci wàllu sëy yi na doon ci wàllu jëflante yi na doon ci wàllu leneen bu dee ne waaj yi dafay dund sunna am kum jëflanteel war ko keneen ñu naan moom it day dund sunna am kum jëflanteel war ko lu ñu wax eh gaa yi seen lii day duñu dara am déet yàqal nga sa bopp yàqal nga keneen kon war ngaa moytu ci loolu xale bu jigéen bi di muuru bu dee dañuy dem gis ko mu def ak njombe beneen xale bu jigéen buuru def ak njombe du dañ naan ah seen muuraay yi de teewul nangam nangam kon moo tax siyaabaka fa tahir heure boo bëggee dund diine xamal ne comportement bi ngay comporté wu day jeexital ca la nga xam ne mooy sa diine siyaabaka fa tahir li nga xam ne it mooy xërëm lépp luy bokkaale dëdd ko wan ko gannaaw damay rëjës nga xam ne day yóbbu ci rëjës ci mbugal gannaaw ba it képp koy defal defal ko ci yàlla tax bul defal kenn ngir sàkku leneen te it xam ngeen ndawtal yi sunu jigéen ñiy def arab yi dañ ko daan def da ngay ñëw fekk Cheikh Ousmane nga jël teraanga ju rëy jox ko ndax xam nga ne boo ko defee rek teraanga moom it mi ngi xalaat lu gën a rëy loolu delloo la ko mooy sunu jigéen ñi ndawtal yi ñuy def ndax yàllaa tax déedéet it day te am ndawtal nga yëkkati dix mille francs jox ko booy xewle yaa ngi yaakaar mu indi vingt mille am na ci pànk yoo xam ne bu ñu xewlee ñëwoo ñu ne hey ba mu mënta tegal delloo ma la ma la joxoon mi ngi noonu kon nga xam ne loolu moom dara yàlla amu ci suñu borom nag ne ko wala tamnun tastaksir ay lépp looy def def ko ci yàlla tax borom xam-xam it ne ne wala tamnun tastaksir da ciy dugg bul def gennu jaamu yàlla bu yiim ko bul def gennu jaamu yàlla ba jàpp ne yow def nga dara déedéet julit loo gën a def keroog nga gën a ragal mooy alladina ataw ataw ma ataw ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun julit mooy kiy def jaamu yàlla yi gën a kawe ba pare di tiit ndax yàlla nangu na ko am nanguwu ko waaye du dem mukk di bàkku maa def nangam maa def nangam maa def nangam abadan suñu borom it ne ko daaw bii nga jëmit coono bëri na ci de kon ngir yàlla yi kese muñal ca mbokk amul kenn kuy jóg di woote ci yoonu yàlla di wax la yàlla wax lu lu dul ay critique dana bëri sa kaw lu dul critique dana bëri sa kaw loolu it kon muñal ca yàlla tax xamal ne àdduna bi day jeex bis a ngi ñëw yàlla santaane ñu ëf ci béjjén bi béjjén boobu nga xam ne ëmb na asamaan yeeg suuf mu nekk bis boo xam ne bis bu jafe lay doon yawmun asir jàng nañ feneen suñu borom ne alal kaafirina xayru yasir kenn du ko yombal ci yéeféer yi nekk ci ñoom juróom fukki junniy at yawmun asir suñu borom wala boog ci saar bi la nekk sax mu naan jàng nañ feneen kon ci saar bi la borom di wax naan alal kaafirina xayru yasir kenn du ko yombal ci yéeféer yi muy wane ne yàlla dina ko yombalal julit ñi yàlla na yàlla boole ñu ca borom bi nag ne yonent yàlla bi bàyyi ma ak kii nga xam ne ba ma koy bind moom muy génn ci biirub yaayam àndul ak dara waxiida te wax yi yépp mi ngi wàcc ci ki nga xam ne moo nekkoon ki waa Makka gënoon a jox cër muy Walid ibn Mughira moom lañ gënoon a jox cër ci Makka kii ma bind moom kese ba muy génn indiwul dara ma jox ko alal ju yaatu mi ngi noonu jur gaa ngi nii jaam yaa ngi nii alal yaa ngi nii may ko ay doom yoo xam ne ñi ngi teew ca loolu moo ko xam ne ñi xéewal la ay gis tey ñu bari seen njabootu ngi bitim réew lu tax ngir amuñu kàttanu mën a toog ci réew mi liggéey waaye soo mënee am sa njaboot gépp wër la ku nekk di am la ko doy loolu ci xéewal yu màgg la gis nañ benn président bu fi jaaroon ba mu nekkee président la dem jëli ñaari doomam ñu indi kon ay doom yu teew ngeen nekk ci xéewal loolu ay xéewal gu rëy la borom bi it subhanahu wa taala teg ci ne yombalal naa ko mahëtt lahu maa ko defal al mahëd mooy loo xam ne lu ñu la prépareel yombal naa ko ak yombal lu mu fëgg ma ubbil ko te it loolu nekkate mbokk du mandargay ku yàlla bëgg de ñu ngi noonu Walid ibnu Mughira lu ko neexoon lu mu sàkku yàlla yombal ko mu ne nag mi ngi bëgg ma dolli ko te dolli ga mooy lan mooy ñoom dañ doon wax naan yàlla bu doon day wax ak ñun Walid ibnu Mughira bii day def mu nekk yonent ci yàlla ndax ñun ñëpp moo ñu ëpp xam-xam moo ñu ëpp ay daraja moo tax ñu naan lawla unzila hadha alquran ala rajulayn ala rajulin min alqaryatayn azim bi yàlla kay bu dee dafa na ma wax ak ñun day wax ak al ibnu masud saqafi wala walid ibnu mughira borom bi nag mu ne mi ngi bëgg ma dolli ko borom bi ne déedéet la am kay mooy dafa wone dëgër bopp ci samay aaya waaye danaa ko forcé ci sauda saud mooy lu jëm kaw te loolu mooy mbëggalum sawara comme niñ ko waxee woon démb mbëggalum sawara day gën a tar ci yéeféer yi abadan abada donte lim na abbas nee na saoud montagne sawara la bu nekk ci biir sawara malaaka yi dañuy jël yéeféer yi ak bol yi di dóor naan leen yéeg leen bu ñuy teg seen loxo yi muy rocceeku ñuy dóor ñuy dóor bu ñu demee ba ca cet la waddaat ci suuf ñu ñëw farsewaat leen ñu ne loolu mooy saoud yàlla na yàlla musul ñu ci ñu ngi noonu
إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر لقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة فتنتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر barakallahu fiik jazakumullahu xayra suñu borom mu ni innahu fakkara wa qaddar moom day daa ñëw mu daa di xalaat daa di dogal fa qutila kayfa qaddar ah reyees na ko ay yal nañ ko rey comme na nga xamee ne noonu la dogale summa qutila kayfa qaddar gannaaw ba rees nañ ko comme nam dogale summa nazar gannaaw ba la xool summa abasa gannaaw ba mu daldi gàññi wa basar ñëkkal kanamam ga summa adbara wastakbar gannaaw ba mu daldi dumooyu dëddu rëy rëylu fa qaala in haada illa sixrun yusar mu ne lii day du dara lu dul ak njabar goo xam ne nii dañ koo jànge jële ko ci ñeneen rek in haada illa qawlul bashar lii day du dara lu dul wax joo xam ne waxi nit rek la sa uslihi saqar moom day daan ko béel te safaras boo xam ne dañ koy tuddee saqar wa ma adraka ma saqar lan moo lay won la nga xame ne mooy saqar loolu koy xamal laa tubqi wala tazar moom day du desal ca it du bàyyi fenn mi ngi noonu lawaaxatun lil bashar nekk na loo xam ne dafay ñori ñeel deru doomu aadama ya alayha tisaata achar dana ca nekk fukki ak juróom-ñeent wa ma jaalna ashaaba annaari illa malaa'ika te ñun day defuñu ñooñu sawara lu dul ay malaaka kefe wa ma jaalna iddatahum illa fitnatan lilladina kafaru defuñu wir seen lim ba lu dul ñu nekk fitna ñeel ñi nga xam ne dañuy weddi li yastayqin alladina utul kitaab ngiree mu am lu wóor ngëm gu wóor ñi nga xam ne dañoo jotoon téere ba wa yazdaada alladina amanu imaana mu daal di dolleeku ña nga xam ne dañoo gëm li nga xam ne mooy ak ngëm wala yartaaba alladina utul kitaab mu bañu sikk sàkka it ñi nga xam ne dañoo jotoon téere ba wal muminuun jullit ñi it bañu sikk sàkka wali yaqul alladina fi qulubihim maradun ngiree mu waxit ñi nga xam ne seen xol feebar da caa nekk mi ngi noonu wal kaafiruun ak yéefér ya maza arada allahu bi hada masala ma yàlla moom lu mu bëgg ci lim bi ci misaal kazalika yudillu allahu man yasha mu ne naka nii day la yàlla di réerale ku mu soob wa yahdi man yasha nii lay doon di jubale ku mu soob wa ma yaalamu junuuda rabbika illa hu kenn xamul sa armée boroom kudul moom wa ma hiya illa zikra lil bashar lii du dara lu dul ak fàttali ñeel li nga xam ne mooy jaami yàlla yi mi ngi noonu mbokk suñu boroom dani kii di Walid ibn Mughira fekk li waraloon lii mooy bi mu ñëwee toog ak yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàngal ko suratul fusilat ca la ñëw ne waa Makka ah Muhammad mi li muy wax man seetantal naa ko de kii lay di waxi jinni di waxi waykat wax la joo xam ni lu mel nii nit musu ko dégg kii waxam ji dana jëm kaw dara du ko féete kaw ah ba mu waxee loolu dem gannaaw ba waa Makka ah réunion gannaawam daal di yónnee ci moom am benn waay bu ñëw ne ko ah yow de waa penc bi ñu ne jaaxle nañ ci yow ñu ne yow day ah da ngaa dem ci Muhammad bani Hashim ñu jox lay teraanga teral la rek moo tax ngay défendre seen woote bi mu daal di mere ak cedd jàpp ko mu ne man nga xam ne lu waa Makka di jaay maa leen ko ëppale ngeen naan dañ maa jënd ca la borom bi ne wax ni innahu fakkara wa qaddar ca la taxaw na xalaat daa di dogal waaye borom bi mu ne lam dogal alak na ko xutti la arab moo koy wax mooy ko alku rek alak na ko loolu mu dogal ca it alku na gannaaw loolu borom bi nee na taxaw na xool ñëkkal kanamam gàññi na ndax mbir yi il faut mu créer waaye bu dee lim gëm moom bokkul lim nar a wax suñu borom yàlla nee na dëdd na wane gannaaw daal ne ne lii daal njabar la goo xam ni dafay jeexital ci doomu aadama yi rek Muhammad lii ko nit ñi toppe njabar la dong goo xam ne nii njabar la goy jeexital in haza lii Muhammad di wax waxi nit kese la te démb moo waxoon ne lii du waxi nit mu ne waxi nit kese la mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne ku mel nii day dinaa ko tabbal ci sawara bu ñuy wax saqar sawara mbokk juróom-ñaari bunt la am na ci bunt bu ñuy wax saqar borom bi nag ne waaw loolay xamal saqar borom bi ne laa tubqi wala tazar laa tubqi fépp fu muy lakk bala koo lakk mu jeex tàkk wala tazar te du bàyyi fenn ci yaramu doomu aadama lu dul lakk na ko gis ngeen borom bi subhanahu wa taala ne day ñori deru yéeféer yi ñoo waxoon nañ leen ci dar yi dars yi passé ne yéeg-yéegu doomu aadama ci yaram la nekk ci deram la nekk moo tax borom bi ne kullama nadijat juluduhum baddalnaahum juludan ghayraha liyazuqul azab mooy heure bu seen der yi ñoree suñu borom roof beneen der bu bees mu ne nag saqar boobu day ñori deru yéeféer yi borom bi ne fukki malaakaat juróom-ñeent ñoo fay garde loolu mu ne waa sawara def ma fa lu dul fukk ak juróom-ñeent ngir waa ahlul kitaab am yaqiin te it boo delloo ca téere yi ahlul kitaab ya yeneen ci yi jiitu woon nee nañ sawara fukki malaaka ak juróom-ñeent ñoo koy surveiller loolu mi ngi noonu ca suñu borom yàlla bi mu waxee lii mu ne itamit jullit ñoom gën a yokk ngëm ci loolu ca mbokk ab jullit dafay gëm boroomam subhanahu wa taala gëm ay waxam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñuy wax ne benn mal mbaggu malaaka ak ab noppam picc mën na caa naaw juróomi téeméeri at te du ko jeexal bu yàlla ne woon benn malaakaay garde sawara sax du doy am déet mi ngi noonu waxumaa fukk ak juróom-ñeent borom bi subhanahu wa taala it daa di ne ngiree jullit ñi bañ a am sikk sàkk ya ahlul kitaab bañ a am sikk sàkk waaye naafiq yeeg yéefir yi ñoom di wax naan waaw misaal bii lu ci yàlla di namm fukk ak juróom-ñeent te nee nañ kilif saay-saay yu màkka yi abu jëhal daf ne waaw muhammad nee na fukki malaaka ak juróom-ñeent xanaa ñun lu ñu sunu mbooloo mi lu mu néew néew néew war nañoo am malaaka bu nekk téeméer bu dem ci ñoom te téeméer ci ñun malaaka bu ñu jàpp daaneel ko am ci benn waay bu saay saay bu dina ko mu ne ah man daal fexe leen téye juróom-ñeent yi rek fukk yi moom dinaa ko arrangé waaye mbokk suñu borom subhanahu wa taala nee na nii la yàlla subhanahu wa taala di réerale ku ko neex nii la yàlla subhanahu wa taala di jëbale ku ko neex waaye sa armée borom kenn xamu ko mbokk armée yàlla kenn xamu ko jibril alayhi salaam ba ko yàlla yónnee fële ci saddoom dafa ñëw dóor laa fam déqi ci dëkk bi ba ci kaw asamaan mu dëpp ko kàttanu armée borom bi kenn xamu ko ñaareel bi seen lim kenn xamu ko looloo tax lenn ci mufassirun yi dañ ni fukki malaaka ak juróom-ñeent yi ñoom ñooy kilifa yi surveiller sawara waaye sawara yonent bi alayhi salaam nee na yàlla bu ne nañ ko indil jahannama sawara am na juróom-ñaar fukki junni jàppukaay soixante-dix mille ci jàppukaay nee na jàppukaay bu nekk juróom-ñaar fukki junni malaaka ñoo ci tey loolu boo ko xoolee day nekk 4 milliards 900 millions de malaaka ñoom ñooy téye sawara su ko defee mu am nag 19 yoo xam ne ñoom ñooy kilifa yu mag yi ba tax suñu borom ne sa armée borom kenn xamul lu mu toll ci 19 bi la suñu borom yàlla subhanahu wa taala lenn ci scientifique yi ca la ñuy gis ne saar yi yàlla ubbee ay xuruuf masalan bu ne qaaf biir qaaf am na juróom fukki xaaf ak juróom-ñaar soo ko divisé égal 19 boo jëloon la nga xam ne mooy noon la ci nekk ci noon boo ko divisé égal 19 boo jëlee yaasin la ca nekk ci yaa boo ko divisé égal 19 siin la ca nekk ci siin boo ko divisé égal 19 te suñu borom subhanahu wa taala nee na ku weddi alquran ji danaa ko booleeg 19. loolu kon ñu ne loolu moom moom la borom xam-xam yi am nañu ci bind ay téere mooy preuve par 19 bi nga xam ne dafa ñëw ci téere bu yàlla bi donte ne ne allahu subhanahu wa taala alam ñun gëmoon nañu alquran avant ces preuves ñu ngi noonu borom bi subhanahu wa taala daa di ne suñu borom kenn xamul la nga xam ne nii moom mooy arméem lii daal nekkul lu dul li ñuy tuddee ak fàttali ñeel doomu aadama yi ca ngallawaayu doomu aadama bi nga xam ne yaa ngi am xalaat xamal ni allaaxira mi ngi ñëw te allaaxira buy ñëw suñu borom yàlla mi ngi waajal mbugal mbugal boo xam ne ni kan la ko waajal mooy képp koo xam ne dafa dummoyu ab téeréem ñooñu nga xam ne ñu dummoyu ab téeréem ñooy dem ci mbugal amma ñi nga xam ne gëmoon nañu ab téeréem jëfe ko ñooñu da ngay gis ña nga doon ci àjjana yi kawe ya yal nañu yàlla boole ca mbooloo ma ko gëm ca déggal ko yal nañu yàlla musal ca ña koy weddi di ko moy wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ala kulli xaal dañuy dajale ay laaj ay mooru koor di ko joxe léegi nag buñ ko joxee ba mu des ndax loolu am nañ droit di ko jëndee ay basang ala mbokk muuru koor yow mi koy dajale da nga koo war a jottali doomu aadama yi sa kemtalal kattan même bu doy ne da ngaa dem joxe joxe ba mu des dellul ca ña nga joxoon nga jox leen ko waaye waroo ko jël di ko garde suñu demoo nit ba nga gis ne daal pexe amul pexe amul gisoo benn miskin gisoo benn miskin loolu it war nga koo denc xam ne alali miskin yi la ñu fexe jox ko miskin miskin yay sàkku dépense miskin yay sàkku ordonnance amma jënd ko ay basang yóbbu ko ca jàkka ja déedéet jàkka ja patron yaag ñu dul patron fa daje ña joxe zakat baag ak ñeneen ñoo fay daje ala kulli xaal nañ def seen kemtalaat kattan jox ko miskin yi bu dee ne dafa paase it nañ fexe delloo ko ci miskin yi ak lu ñu ko mën a delloo ci ñoom damay sujjuut ndax samay soxla yi may ñaan ci julli mën naa koy ñaan ci wolof loolu de ñun lañ ca taamu mooy la ca yenn borom xam-xam yi di wax moo di ne suñu borom day nee na in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa soo waxee ci kaw xam naa soo waxee ci suuf xam naa li nekk si biir dënn xam naa soxla yooyee nga am yàlla sama visa bi soxna si ma bëgg a takk problème bi ma am ak sama soxna yooyu mën ngaa sujjuut ñaan ko yàlla sa xol amma la nga xamee ne nii da nga koy ñaan yàlla mu nekk ci loo xamee ne nii dañ koy wax ci làmmiñu arab bi nga xam ne ci la julli wàcc loolu mooy la nga xam ne moo gën a mucc ayib bu dee parfum moom parfum du yàqu koor parfum moom yàqul koor wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam qiyaamul layli nit ñi day dañoo bëri ay jafe-jafe rek at bu nekk ñu indi problème boobu boo ko qiyaamul layli suñ ñeneen ti dane fukki guddi yu mujj yi la weeru koor bi ñetti fukki guddi la ama fukki guddi yu jëkk yi fukki guddi yu digg yi fukki guddi yu mujj yi fukk guddi yu jëkk yi ñu ngi commencé premier guddi avant ñuy woor la premier guddi bi commencé suñ demee ba léegi woor fukki fan loolee moom passé na fukkeelu fan boobee mooy ubbi fukki guddi yi ci des ndax mooy nekk onzième nuit am déet kon suñ demee ba ñaar fukki fan la fukki guddi yi di mujj ay bu ñu waree ñaar fukki fan ba jeexal ko loolu mooy la nga xam ne mooy lu wér moom ngay gis Makka moom ngay gis Madina loo gàtt gàtt information war ngaa dugg internet wala nga jàpp télé wala lu mën a doon da ngay gis ne kon boo ko fukki guddi yi mujj yi mooy bu ñu amee ñaar fukki fan amma yow boo nii da ngaa bëgg fukki guddi yi mujj yi kon fukki fan ak juróom-ñeent ngay commencé waaw bu wéeru feeñul nag nooy def bu wéeru feeñul doom fukki guddi ak benn kon nañu xam ni fukki guddi weeru kooru ren gi mi ngi commencé alxamis bii di ñëw alxamis ci guddi di guddi aljuma ca la fukki guddi yi di commencé moom lañ koy commencé fii mi ngi noonu lan mooy ala kulli xaal ci lan mooy teqale diggante wàccuwaayu dara ngëneelam ak ak ak ak itteem loolu koy amul teqawaay lépp loo gis dafay am manzila masalan manzilatu salaa manzilatu salaa fi lislaam dañ naan arkaan la min arkaani salaa ponk la ci ponk julli ngëneelam ngëneelu julli ku ne xam na ko moo di ne ne ci li gën a jokkale borom bi subhanahu wa taala ci adduna di ko xetti lii alaxira amma ahamiyatuhu bu doon salaa la ñuy jël mooy moo gën a itte lépp buñ doon jihaate bu julli jotee dañuy jihaat lépp lu ñuy def bu julli jotee da nga koy bàyyi julli kenn du ko booleeg dara loolu kon misaal la ca wàllu googu amma waaj yi mu ne allah sama mu ne ndax lii sunu borom wax ne asamaan jooyul firawna ak ay gaayam ba mu leen alagee ndax day wane ne nit ki bu deeyee asamaan ak suuf da koy jooy naam mbokk jullit nit ki bu deeyee doon def lu baax asamaan ak suuf dañ koy jooy moo tax suñu borom ne firawna ak i notable am asamaan ak suuf jooyuñu ko ah bu doon def lu bon asamaan ak suuf dañuy kontaan ci moom moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane doomu aadama buy buy dee ñaar rek a am mustarih mustarah minhu koo xam ne nii dafay noppalu wala ku ñu noppalu ci moom nee na saay-saay bi bu deeyee bàyyi ma yéeg àll bi ñëppay noppalu ci moom ndax bakkar yi mi def day jeexital ci moom mu des nag naka la asamaan di jooyee mi ngi noonu mbokk asamaan ni muy jooyee bokkul ak ni ki nit ñi jàppe mooy asamaan dañoo xëy suba asamaan bi niis na ah sëñ diw koy ku ne xam ne ne ba ba mu dee gis ngeen ne asamaan si def mi ngi noonu bu asamaan bu nge seddee ñu ne daa sedd bu ngelawee ñu ne daa ngelaw mbokk déedéet sabbal gi asamaan di sabbal ñun xamuñu nuñ koy defee di loolu la yàlla wax de laa tafqahuna tasbihahum naka noonu it jooyuk asamaan xamuñu ko mi ngi noonu ak meruk asamaan xamuñu ko waaye suñu borom yàlla subhanahu wa taala xamal nañu ni nit ku baax heure boo xamee ni nii jaamu yàlla yii yéeg kaw asamaan bis bu demee ba dog asamaan da koy jooy suuf si mu toogoon di jaamu yàlla suuf da koy jooy ndax xam na xabaar yi ñuy def ci moom amma saay-saay bi nekkoon di nekk di def lu bon ci kaw suuf bu dee asamaan day kontaan suuf kontaan amma nag nañuy jooy ak nañuy kontaanee seen borom ñoo ko xam kumpa la xamuñu ko yàlla nañu yàlla boole ca ña asamaan di jooy bis bu ñu fi jógee yàlla nañu yàlla musal ci lenn loo xam ne day tax ñuy am jeexital bu bon ci jaamu yàlla yi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain